ñoo ngi nuyu bu baax soppe almisbaax yépp soppe almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppe almisbaax yi nekk bitim réew di leen bége bu baax di leen ñaanal delluwaat di sàkkuwaat ci yéen ñaan di bég lool ci ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi ci biir réew mi di bég ci ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi te nekk bitim réew def ko muy seen jotaayu wéttal di santaat borom bi subxanahu wa taala ci xéewal gim ñu may ba ñu agsi ci weeram wu tedd wi nga xam ne mooy weeru koor di weeru barkeel wi nga xam ne mooy sangu weer yi moo gën ci weer yi guddi gi gën ci guddi yi ci biiram la nekk téere bi gën ci téere yi masa wàcc te defar nit ci biir weer wi la wàcc kon weeru gën gën gën rek la ngëneel yooyu ci nekk yépp yàlla nañ dajeeg moom yàlla nañu ko borom bi Eh, wàcceel ci suñu kaw te wàcceel leen ko yéen itam ñoo ngi yeesalaat bu baax a baax suñu nuyoo ak suñu kóllëre ak suñu baalu àq ci mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Al Misbah ñoo ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax a baax koo xam ne mas nañoo jàpp di ñu déglu dégg wax baat boo xam ne ab dënnam rëcc na ci wala sax mu jàpp ne waruñ ko woon a waxee noonu ñii daal moo gënoon rafet ñoo ngi koy jéggulu ñaan borom bi bu fekkee dox digganteeg moom la ci luñ war a jéggal mu jéggal ñu ko bu dee dox suñ digganteeg moom la ci jaamu gum rafetlu yal nañu ko nangul ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax te di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di ñaan borom bi subxanahu wa taala mu nangul ñu beesalaat suñuy yéene rek incha allah bu baax waaye beesalaat suñu tuub. gën a yokk suñu solidarité waaye gën a jegewaat téere borom bi subhaanahu wa taala di alquranul karim ndax jamono jëpp lañ ko war a jege waaye weer wi di weeru koor day weeru alquranul karim moo tax def ko muy wéttal moom dafa am solo lool suñu mag ña ci seenu mbaax bu weeru koor masaana ñëw dañuy mel ne kuy teeru gan gan guñ fonk mi ngi mel ne ku prisident président dafay jaar lépp luy taq ci kër gi wala buntu kër gi wala foo jàpp ne war nañ faa gis dara muy gis say awra lu lay xeeb nit ki da koy nëbbu ndax gan gu réy gi muy am ñoom dañoo jàppe woon weeru koor muy gan gan goo xam ne dafa ñëw ngir taqale la ak say bàkkaar maanaam li nga taq te man laa yóbbee merum borom bi subhanahu wa taala moom lay ñëw ngir fompal la ko ba mu set euh, weer woo xam ne dafa ñëw ngir defal la formation ci nga bàyyi xel yàlla nga ragal ko nga ragal yàlla def ko muy sa wéttal weeru koor loolu dong lay jàngale maanaam liñ la tere ci bëccëg bi yépp nga xam ne wéetoon nga man koo def te kenn fekkewu ko dangaa yëg ni ki la ko tere mi ngi ànd ak yow allahu akbar dangaa yëg ni ki la ko tere mi ngi ànd ak yow loolu moo tax bu loolu yépp jeexoon it nga def kila la ko tere mu ànd ak yow moo tax nga di ko wéttalikoo nga di ko wétli nga xam ne loo ne surtout di ko bëgg a def donte man nga koo rabba rabba rabba rabba rab ba feeñ ci nit ñi yëg nga ne borom bi subhaanahu wa taala moom xam na ko yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allahi wa huwa maahum wala maakum loolu la wax yàlla nee na gaa yi dañoo ragal nit ñi te ragaluñ ma waaw dañoo ragal nit ñi te ragaluñ ma moo tax léeg-léeg dañuy def facture yi jéem koo xool mu normal xool affaire bi ci comptabilité bi ba mu tegu ci yoon ndax ëllëg bu rapport yi ñëwee ñu mën a taxaw justifier ko jàpp nañ ne daal buñ ko justifier ci nit ñi bañ ne waa ji dafa jub rek yàlla nee na jàpp nañ ne baax na waaye nag man moom euh, faalewuñ ma xamuñ ne man lañ doon ràbbak lañ doon làqarteeg la ko fondeek lépp xam naa ko nañ jote ca marché yaag nañ ko joxeek euh, la ca laxasoog yàlla nee na lépp xam naa ko lépp lépp lépp lépp lépp waaw dañoo mel ne nag kuy lekk sawara waaye yëguñ ko yal nañ yàlla musal ci lekk sawara te daal bokk ci lekk sawara mooy lekk alalu askan waaw ku jiite aw askan ku ne la jëm ca ñoom nga di ko lekk bàyyi leen dangaa mel ne kuy lekk aw sawara képp ku yor ab jirim alalam nga jël ko lekk ku ci lu dul lu rafet dangaa mel ne kuy lekk sawara bépp njiit loo xamante ne nii lii jaar ci sa loxo ci ñi nga jiite la jëm nga ne ko fuuf wala nga sédd ñi bàyyi ñii ameel nga leen àq joo xam ne ëllëg yowmal xiyam mën na la faa yàggal lool mën na la faa yàggal lool yal na yàlla yërëm ñi jiite te kàttanal leen jiit nattu la jiit nattu la ndax dafa bari yu lay gaar yoo xamante ne nga mucc ci dafa jafe ndax nit doomu aadama ak ni jamono yàqoo ak ak yi ñu donn te nga xam ne mooy nekkal ci sa bopp gaa yëpp ci seen bopp lañ nekk baat boobu ni mu tiidloo nekkal ci sa bopp te nekk ci yàlla muy ak jaamu yàlla waaye nekkal ci sa bopp nekku profitool ci poste biñ la fal wala profitool ci situation yi nga nekk joggil nit ñi nga xamante ne jamono ji ngay jël xaalis bari di ko lekk aw askanu lëm wuy ñëw ëllëg sax manoon nañ cee dund ci loolu lim leen waroon a jural loolu li ci nekk ci lu ñu war a bàyyi xel bari na lool li ci nekk ci li ñu war a bàyyi xel bari na lool yàlla yàlla sàmm may ñu ñu dugg ci koor gi ak bismillahi rahmaani rahim may ñu ñu jeexal ko ak alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal te nangul ñu jaamu yiñ ci jaamu yépp dañuy daal di wéyal nag bind bi nga xam ne moom lañ dooroon ak yéen ca rajab booba nëgëni te mooy lu jëm ci wàllu julli ba agsi woon ci julli yi nga xam ne mooy julli naafile yi ba agsi woon ci palaas yi nga xam ne wala palaas yi nga xam ne moom lañ war a defee julli naafile yan palaas moo ci gën moo waxoon la ne palaas bi gën ci naafile mooy ca kër ga boo ko defee ci jàkk ji nag baax na waaye yonent bi alayhi salaam moo wax ne dee sedd seen kër yi ci julli yi dee sedd seen kër yi ci julli yi Omar wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na julli la ak leer la kum neex nag mën nga cee leeral sa kër kon mën nga cee dem julli ji sa kër bi may daaneel bind bi démb ma indil loon la ab xadis boo xam ne ab laaj la boo xam ne Abdullah ibn Saad nee na dañ koo laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullee ci kër gi ak jullee ci jàkka ji ban moo ci gën alayhi salaatu wasalaam tontu leen tontu lu xam-xame mooy su fekkee jullik naafila la kër gi moo gën su fekke jullik farata la jàkka ji moo gën wala mbooloo ma moo gën rek lay tekki jullik naafila kër gi jullik farata jàkka ja Suhayb ibnu Nu'man nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li gën ci julli naafila mooy nit ki julleeko ci këram ba nga xam ne ala salaatihi xaysu yaraahu naas ka fadlil maktuba ala naafila mu jullee ko ci këram mooy li nga xamante ne moo gën moo ëpp aw yiw moo ëpp aw yiw julli naafila yooyu nag dañ ciy génnee kon bu boobaa lu mel ne jullik it jullik eet maanaam jullik korite ak jullik tabaski yàlla nañ ci àgg ak jàmm tatal ko yooyu defee ko ca mbooloo ma moo gën fa lañ koy defee ji sax nag mhm. lu mel ne jant bi muuru ñu doon julli salaatul kusuuf wala ñu ne dañoo jàpp weer wi yooyu dem bu dee mbooloo dañoo daje di ko def defee ko fa mooy gën lu mel ne julli baaw naan maanaam mu toogoon bañ a taw ñuy julli ngir mu taw dem julli ke mbooloo ma moo gën fa lañ ko war a defe it lu mel ne taxiyatul masjid moom ca jàkk ja lañ koy defe ndax dégg nga ko nuyu jàkk la tudd donte naafila la lu mel ne ñaari rakk yi ci tawaaf di julli boo tawaafee ba noppi ñaari rakk yooyu ngay julli te ñel da koy julli ci maqaama Ibrahim yooyu itam daa bokk ci yi nga xamante ne foofu ñu la joxoñ foofu nga koy foofu nga koy jullee julli ki nga xam ne moom la nit ki di julli ca këram mooy yeneen naafile yi nga xam ne kon amul aw tur maanaam julli woon ba pare bëgg julli ñaari rakka wala yu demee noonu waaye yeneen julli yi ci des yépp nit ki mën na koy jullee ca mbooloo ma bu dee naafila la te loola sax lañ ca taamu bu dee weeru koor gi nag bu ko neexee mu jullee këram mu jullee këram naafila yi bu jullee ca jàkka ji gee yàlla ñu am jotu mën a jullee suñ jàkka yi bu ko neexee mu naafila ci jàkka ji ñaari raka bu ko neexee mu ñibbi ba këram door a julli ba sonn safa ak witar tëdd su fekkee dafa war a jiite mbooloo ma ca jàkka ja ne leen jiite su fekkente ne nekkam fa itam daa am lu muy indi wala mën na faa jàngi dara wala am na lu mu fay dollee ko it na ko fa jullee ndax loolu itam ci yiw wi la bokk moo tax julli coobarewu ci mbooloo lu ñu sopp la lu ñu sopp la moo xam julli gi dañ koo defee ci kër moo xam dañ koo defee ci jàkka waaye coobarewu rek julli julli mbooloo woo xam ne julli naafila la loolu dañ koo sopp lool dañ koo sopp lool moo tax Eh, Seydina Umar ibnul Xataab radiallahu anhu ba mu rombee ña daje woon ca weeru koor ga di def nii mbokk yi di taxawee ci jamono joo xamante ne dañ daan fiix mu ne leen bidaa bu rafet ngi nii boo xamante ne daal moom macha allah leneen li ci topp dañ koy waxtaane mooy ki nga xam ne day julli julli naafila toog wala mu taxaw xam nga julli farata gi ba ma lay wax dama laa waxoon ne la ci farata ya taxaw ci la bokk ci ku am kàttanu taxaw koo xam ne am na wérug taxaw taxaw daa nekk farata ci julli taxaw farata ci julli ji rukunun la min arkaani salaat al mafruda ponk la ci ponki julli ci julli farata waaye naafila nag moom du ci farata naafila taxawaay bi du ci farata naafila dagan na ci nit ki mu taxaw dagan na ci nit ki mu toog te fekk amul benn ngànt waaye da koo neex rek muy naafila julli toog loolu dagan na waaye dañuy wax ne ki nga xam ne dafa mën a taxaw ba noppi toog ci jullig naafila xaaju tiyaaba lay am maanaam bu fekkoon naafila gi dañ ko cee war a fay cent cinquante lañ koy fay moom nag mooy xool ba xam cinquante yooyu doy na ko wala déet loolu xadis la boo xam ne imaam Buxaari indi na ko ak yeneen i boroom xam-xam mu bokk ci xadis yi Abdullahi ibnu Burayda yi ñu jële ko ci Imran ibnu Xuseyn mu ne dañoo laaj bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu julli julli toog wala julli taxaw mu ne leen julli taxaw salaatuhu qaa'iman afdalu min salaatihi qaa'idan moo gën moo ëpp yiw ki nga xam ne day julli toog waaye ki nga xam ne dafay julli toog day am xaaju ki nga xam ne day julli taxaw ki nga xam ne day julli toog genn wàllu tiyaaba lay am bu fekkonte ne dafa julli taxaw tiyaaba ji nga xamante ne moom lay am ki nga xam dafa toog te amul ngànt nag lañ wax kon li gën ci julli gi mooy nga mooy nga taxaw su fekkente ne jullig naafila la boo toogee da nga am genn wàllu xaaj bi bu dee jullig farata la nag boo toogee te fekk ne manoon ngaa taxaw julli gi day yàqu ndax dangaa bàyyi ab ponk ci ponk julli gi kon julliwoo kon julliwoo loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko cee yokk bala maa ñëw ci waxtu yi nga xam ne dañoo bañ ku ci naafila ndax am na waxtu yoo xam ne dañuy bañ ku ci naafila danaa ci ñëw dañuy ñëw ci naafila ndax dañ koy fay wala duñ ko fay ndax nit dana fay naafila wala du ko fay naafila mooy julli guddul julli farata julli farata moom ñun ñëpp dëppoo nañ ne farata la nit ki da koy fay bu dee julli wàññi la woon daa demoon ci dëkk diggante bi mu wàññi woon di julli ñaari rakka am fa bor buy fay ak fu mën a nekk julli kuy wàññi lay fay bu dee daa nekkoon ku am borob matal buy fay ak fu mën a nekk borob kuy matal lay fay waaye day fay amul waxtu wuñ ko naan doo ci fay ak waxtu woo xam ne dañ ko naan danga ci fay euh, ki nga xam ne nag naafila la am bor wala naafila gum waroon def te difu ko moo xam nu mu nekkee bor ci moom euh, da ko war a fay wala déet loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute dañoo wuute ci fay naafila am na lu mat juróomi wax yoo xam ne ñëw na ci lu mat juróomi position yoo xam ne ñëw na ci ñu njëkk ñi dañoo wax ne sopp nañ ñi fay naafila gum mën a doon bëgg nañ nit ki fay ko moo xam naafila gu toppoon ci ginnaaw julli la mu ne woon dama bëgg sax bis bala maa julli tisbaar julli ñaari rakka wala naafila goo xamante ne topp ci ginnaaw julli la lu ne julli ayit wala yeneen julli yi nga xam ne moo ci moo ci moom lañu aadowoo julli ci bis yu mel noonu wala nit ki julli yum daan julli ci guddi yi wala yu demee noonu yooyu ñoom dañoo sukkandikoo benn xadis boo xam ne imaam Buxaari ak muslim yëpp andi nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man nasiya salaatan fal yusalli ida dakaraha la kafaarata laha illa dalika ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne dafa fàtte ak julli su ko fàttalikoo rek su ko fàttalikoo rek na ko julli amut benn kafaara boo xam ne dako ko ciy war xadis bi dafa leer waaye nag day wax ci lu jëm ci wàllu fay li nga xam ne mooy moo faat nit ki ci julli mut la xam ñoom ñu ne moo xam jullik farata la moo xam jullik naafila la moo xam jullik farata la moo xam jullik naafila la wax jooju euh, waa kër imam Shafii ak ñu bari ci ñoom ci ay ñu leen topp wax nañ ko waaye am na ak wuute gu amaat ci seen biir loolu mooy wax ju njëkk ji waxu ñaareel bi mooy sopp nañ ku ko fay sopp nañ ku ko fay ki nga xamante ne da koo yeexe te ngànt tax nga xam ne da koo yeexe da ko yeexe te ngànt tax waaye su fekkee amu doon benn ngànt soppuñu mu fay ko waaye ki nga xam ne dafa waroon a naafila naafila gi mu waroon a naafila ngant moo dox diggante ak moom maanaam dafa jàppoon nekkoon ci ay xat-xat ba tax defu ko bu féexee mën na koo fay ki nga xam ne nag dafa toogoon rek négliger ko toog ba mu neex ba mu ba mu paase mu ñëw bëgg koo def kooku moom soppuñu ngir mu fay ko ndax moom dafa maanaam moo ko tey ñoom noonu lañ ko gisee ñoom itam dañoo sukkandikoo ci xadis bi nga xam ne moom laa njëkk a wax wax ne xadis boobu dañ koo jagleel farata waaye naafile yi bokku ci xadis boobu neen yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax ku bàyyi julli farata saa yu ko fàttalikoo na ko julli lañ ci jublu euh, te xam ne amut kafaara ko ci war nee na loola bañ koy wax jullik farata lañ ciy déggee maanaam man tooxu xadis bi muy wax ji doo ci déggee farata ak naafila ndax man na nasiya salaatan rek la wax waaye ñoom seen mafhum ci xadis boobu muy seenu déggin dañoo gis ne ku bàyyi jullik farata moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg wax waa groupe bu ñetteel bi dañoo wax ne soppuñu ku ko fay soppuñu ku ko fay mooy mësa bu imam malik ñoom loolu la ñuy wax laa yustahabu qadaa'uha mutlaqan li annaha tafuutu bi fawaati waqtiha ndax nee nañ jullig naafila moom day faat ni waxtu wi di faate waaw waxtu wi faatee rek da ko yóbbaale moo tax soppuñu ko ko fay amul naafila gu naan damay fay sama naafila ñoom noonu lañ ko gisee Eh, wax jooju la imaam Abu Hanifa wax rahimahullah eh, ñu bari ci école imaam Malik itam loolu lañ wax dañoo wax ne laa yaqdi min an nawafil illa sunnatil fajri wala witr nee nañ ñoom naafila kenn du ko fay lu dul ñaari rakkay fajar ak witar ñaari rakkay fajar nee nañ dees na ko fay ki nga xam daa waroon julli ñaari rakkay fajar julliwu ko ba julli suba jot mu julli ko te julliwut ñaari rakkay fajar bu jant bi fenkee ba yëkkatiku sopp nañ mu fay ko ci mashabu imam malik ak witr itam bëgg nañ mu fay ko loolu mooy waxi ñetteel waxi ñeenteel ji nee nañ ñoom sopp nañ mu fay ko sopp nañ nit ki fay naafila mus mustaqilla mustaqilatun bi nafsiha misla sunnatul idayni wal witri duna nawaafili taabi li salaati ñoom ne nañ bëgg nañ nit ki fay ko bu fekkee lu mel ne julli ayit la lu mel ne witar la waaye yeneen naafile yi nga xam ne moom lañ doon wax te muy ànd ak julli farata yooyu moom duñ ko fay loolu mooy wax yiñ ci indi bu juróom meel bi ñoom dañoo wax ne ataxyir bayna al qada wa adamihi ñoom dañoo wax ne manees naa tànn am yuñ ciy fay ak yoo xamante ne deesu ko ci fay loolu mooy bunt bi kon li ma la ciy tënkal ci bu ma la indilee juróomi wax yooyu yépp mooy julli naafila bu fekkente ne ñaari rakkay fajar la bu jant bi fenkee ba yëkkatiku da nga amuk péex naafila dagan waxtu woowu moom naafila dafee dagan bu la neexee naafila ñaari rakka muy ñaari rakkay fajar ya warul julli bu la neexee naafila ñeenti rakka mu julli yoor yoor bu la neexee def juróom benn rakka bu la neexee def juróom-ñetti rakka julli yoor yoor taamu nañ ci lool juróom-ñetti rakka su fekkee yeneen naafila yi nag la nga naan bu ma jullee tisbaar bala maa julli tisbaar damaa bëgg a julli ñeenti rakka nga julli tisbaar te julli woon ñeenti rakka yooya ñeenti yooya moom du bor bu gàllu ci saw ñu naan la danga koy fay déedéet loolu moom nekkatut loo xamante ne nit ki da koy fay loolu mooy liñ ci déggee yal nañu yàlla may ñu dégg suñu diine beneen bi ci topp mooy waxtu yi nga xam ne dañuy bañ ku ci naafila dafa am waxtu yoo xam ne dañuy bañ nit ku ci naafila loolu dafa am ay waxtu la yoo xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere ñu naafila ci ñu naafila ci danaa ko ñëw jéem la koo benn bennal incha allah lu tax mu ne dafa tere ñu naafila ci te waxul ne dafa tere ku ci julli rek mooy bu fekkoonte ne da ngaa war julli farata te julli woo ko naka noonu ko waroon a julli tisbaar wu ko ba 18 heures du ne ginnaaw tàkkusaan dañuy bañ ko ci julli kon naa bàyyi ba timis ma door a julli déedéet farata moom waxtu wu ki fàttali ko te waroon ko julli mu nekk ci loosam moom day daal dem julli ji ko naafila kay lañ ñaan euh, na ko julli ak du ko julli waaye farata moom amul waxtu waxtoom wi nga ko wutal bu xasee jot waxtu woo waxtu la dafa am muxtaar waxtu woo waxtu la dafa am daruri yi waxtu woo waxtu la dafa am nag koo xam ne day fay nga xam ne jooxewut jooxewut ci waxtu wi ci njalbeen ga jooxewut ci digg bi jooxewut ci cat la kon waxtu wi muy julli moom day fay julli waaye julleetut ci waxtu wi waxtu yooyu nga xam ne dañoo tere ku ci naafila ma bëgg la ko teqantal ci tàmbuli xam naa bindub suba bi lañ ciy gën a dugg mooy waxtu wi dox diggante julli suba ak jant bi di fenk waxtu wi dox diggante julli suba ak jant bi di fenk ci kanam tuuti buñ jullee suba ba noppi buñ jullee ñaari rakk suba ba ba jant bi di fenk ba jant bi di génn waxtu woowu dañuy bañ ko ci naafila kenn du ci julli dañ koy bañ man nga cee jàng alquran man nga cee wird man nga cee def say salaatu ala nabi waaye di kabbar di sëgg ki waxtu woowu dañuy bañ ko ci julli al waxtu ma bayna salaati subhi wa tuluhi shams waxtu woowu dañuy bañ ko ci julli beneen waxtu wi ci topp mooy ginnaaw saan ba jant bi di so bu takku tàkkusaan xasee jot bañ julli ko ba noppi ba ba jant bi di so dañuy bañ ko ci naafila wal waxtu ma bayna salaati al asri wa xurubi shams hmm. buñ jullee tàkkusaan ba jant bi di so dañoo bañ ko ci naafila ki nga xam ne mooy abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma fóoree xeet wi moo ne xadasani eh, unaasun uhibbuhum ila omar radiallahu anhu ana nabii sallallahu alayhi wa sallam naha an salaati baada al asri xatta taxruba shams wa baada subxi xatta tatluxu shams mu Seydina Omar nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere nañu ñuy naafila ginnaaw julli tàkkusaan ba ba jant bi di so tere nañu it ñuy naafila ginnaaw julli suba ba ba jant bi di fenk kon waxtu yooyu mooy waxtu yi nga xam ne bëgguñu ku ci naafila ñaari waxtoo ngi noonu beneen wi ci topp te ñetteel bi mooy waxtu wi nga xam ne jant bi day fenk te yëkkatikoo koo gut yëkkati maanaam fenk ba jeex jant bi dafa am lu génn am lu ci des wala jant bi di door a fenk rek waxtu woowu dañuy bañ ko ci naafila da ngay bàyyi ba jant bi génn ba yëkkatiku lu tollook ab xeej waaw lu maanaam lu lu ab xeej ñi wax ne jant bi day fenk ma 30 minutes maanaam buñ la nee jant bi 7 heures 30 lay feeñ kon na ngaa bara bàyyi ba 8 heures 30 wala 8 heures wala 9 heures waxtu naafila door a door a dagan maanaam ba jant bi fenk ba yëkkatiku ba fenk ba jeex nee nañ waxtu woowu itam dañoo ba bëgguñu ko ci naafila mooy bu jant bi di fenk te génnagul da ngaa war a bàyyi ba jant bi fenk xatta tarfa xadra rumxin wa waxtul istiwa waxtu wi nga xamante ne jant bi day fenk te tolloogut noonu dañuy bañ ko ci naafila buñu yàlla may ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba te bunt boobu nga xam ne moom lañ ubbi te mooy waxtu yi ñu bañ ko ci naafila ñu ci ñëw gën la koo leeralal incha allah ñu delluwaat di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu te nangul leen ñaan ko mu defal ñu njéggalu bàkkaar te defal leen ko ñaan ko mu sàmm ñu te sàmm leen defal ñu sutura sa àdduna defal ñu sutura sa defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi àlaxira defal ñu ak doylu ak dal def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër ñoo ngi béggewaat soppe Al baax yëpp ñëpp rek ku lim juum ñoo ngi leen di béggewaat bu baax a baax a baax te di leen baaluwaat àq ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal sant ngërëm ñeel na leen jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfal Oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna ak jàmme defal ñu suturas àdduna ak suturas alaxira seen mbokku Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu